liggéey na ñëpp moo ko génnee doomu Pikine cent pour cent Pikine tey seen frère ni nga ko gisee. loo wax waaw xanaa kontaan rek ci ñun duñ ne 100 pour sax dañ naan 1000 pour cent Pikine Boy Niang suñu frère la suñu càmmiñ bu baax ci ñun la koo xamante ni dafa bëgg Pikine bëgg doomu Pikine lépp lu doomu Pikine nekk rek Boy Niang dafay sawar ci ñëw accompagner kooku man nag particulièrement man lépp loo xamante ni nekk naa ci rek à chaque fois daf may accompagner di ma ci jàppale ba li ci mujj muy législative yi ñu génn taxawaay bi nga xamante ni amoon na ko ci man ak yéene nga xamante ni amoon na ko ci man kon nag de retour moom bu soxlaa lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi ñëw jàppale ko taxaw ko ñaanal ko yàlla aussi yàlla defal ko ndam lu rëy ci barke Seydina Mouhamed loolu lañ koy ñaanal mu def ndam loo xamante ne daal mëstaam loolu lañ koy ñaanal koy yabe janvier nu mu war a jàkkaarloog Balla Gaye 2 waaw na bëree ak moom ci xel te xam nga booy ñaar moom mooy xale donc moom moo war a prouver comme Balla Gaye xëñ na wàcce na boppam ba war a bëre ak moom kon Boy Niang moom mooy xale moom moo war a prouver fan yi le ñu ngi doon wax comportement bi Boy Niang am ci digganteem ak Balla Gaye ma ni leen Boy Niang dafay fay bor ndax Balla na mu daan def ay magam non stratégie boobu la Boy Niang indi def ko Balla et c'est très normal aussi comme moom moo gën a nekk xale gën a féete xale daf koy war ni ko man xale laa te fugu de jeunesse bi laa àndal doole bi ci moom mi mi ngi ci mi ngi ci Boy Niang euh, euh, yàlla rek yàlla defal ko ndam. état bi ngeen gis dal na seen xel ci moom. bien sûr ñun à chaque fois booy ñaa buy bëre dañuy am xel mu dal parce que nag allah chaque jour daf ñuy rassurer assurer nañu incha allahu rabi dinañu indi yëpp ñu ngi ci ginnaawam Pikine yëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla ndam ndax mbër moo mbër la mais yorul jikkooy mbër mbër la moo xamante dafa sincère en amitié su xësee ba jàpp jàpp na booy ñaa nit ku baax la yorul jikkooy mbër en tout cas ñun li ñu ko xamal mooy tey la te la donc dañ koy ñaanal yàlla encore une fois yàlla defal ko ndam. ana monsieur mi ngi ci ma nee ko gisuma ko ci tàkk gi ba di ko gis. mais mais du ma la bàyyi te te laajuma la ci audio yi. audio yi toj na dëkk bi. waaw mais audio yi ku ci nekk rek ak ni ko koy gisee audio yi amul problème en tout cas xam nga lu ci am solo. mooy Adji Sarr incha allahu rabbi jàkkaarloo bi mu war a jàkkaarloo ak Ousmane Sonko. procès la ñuy xaar. lu koy tere am. audio yi ñu dégg mu fi wute ñu tudd ci ku ne. mani problème bi du problème mu audio audio bu mënti ñëw rek dafa ñëw après. après Sweet Beauté la ay audio am fi toll nii xam nga lan moo am solo Sweet Beauté ak ak quatorze morts loolu moo am solo mais quant à ay mbiru audio loolu li li sama frère Ba te di wax naan eggul ci juge bi li am solo mooy fee yi ak décès yi nga xamante ni am na ko te pour man vi yi nga xamante ni ñoo ci rot ci mars boobu pour man loolu sax moo gën a ëppati solo que ay mbiru viol de très sincèrement euh, viol bi méttit naa ko en tant que jigéen mais quatorze personnes deewee loolu tey jii sax lañu ñu war a gën a mën a tax ñu leeral mbir moomu noonu ñu xam fan la kan moo fautif ku mënti doon ñu yen ko ñu yen ko faute yooyu noonu nga xam ne moom la. confirmé waa ji complot bi doon jiñ état bi. mais xam nga complot mooy koo xamante ni dañ la tegal ndigg sërëxal maanaam koo xamante ni dañ la fekk ba sa biir kër ñu lalal la ñu lalal la euh, euh, ndigg ndigg sërëxal teg la ci na la defal nii defal nii ba nga pëtax ci ci ci ci complot boobu mais loo xamante ni si magum jëmm bu bu bu bu responsable moo dox ak tànkam dem ba fi mu war a dem lam fa jëf allahu axlam kenn xamul dëgg la wala du dëgg xëñ na dañuy bàyyi incha allahu rabbi bu procès amee lañ ca war a def ñu def ko ca beneen bi ci des nag mooy président Macky sàll ak euh, euh, occupation yi nga xamante ni moom la am au niveau national ak au niveau international tal na leneen lu dul di tegal ay ndigg sërëxal opposant très franchement non Macky Sall amul jot boobu Macky Sall dafa am lu bari lu ko war ci réew mi xam nga mag président Macky Sall sénégalais dañ koo yónni ba pare yàqam ci ko donc bas am na bases yoo xam ni moom du ci nekk très sincèrement ñin ñin ci ci audio yi Mamour Diallo El Hadj Diouf Antoine Diome Bougane Gueye Dany macha allah nee na Kirikou Abdou Mbow. waaw xam nga xam nga li ma bëgg xam mooy. li ma bëgg xam mooy. Adji Sarr la wax ci ñooñu. bi mu leen limee liste boobu lan la wax ci ñoom. waaw mais ku mu nekk nga yëkkati sa téléphone woo Adji Sarr bu coow amee Ousmane Sonko am taxawaay boo xam ne dafa ko am ci digganteem ak pouvoir bi chaque jour ku ne gis na euh, euh, Ousmane Sonko di taxaw di accuser état bi te musu leen a accuser ba indi preuve donc bu fekkente ni ñooñu coow am na ñu yëkkati seen téléphone woo Adji Sarr xëy na bëgg ko xettali wala bëgg ko dimbali mais en tant que sénégalais loolu y a ñoo piégé Ousmane Sonko wala loolu sa prouve que ne ni ñooñu ñoo la la ndigg sërëxal Ousmane Sonko non nee naa la piège ak ay audio ak lépp après suite beauté la am après suite beauté kon li am importance ak ci li liñ mën a jàpp mooy la xewoon suite beauté encore une fois ak quatorze personnes yi nga xamante ni décédé nañ ci loolu tey ñooñu dañu war a xam kan moo def foot ba tey quatorze personnes yooyu noonu décédé loolu la ñu bëgg xam ñun en tant que sénégalais te loolu mooy li nga xamante ni moo amal njariñ sax askan wi mbiru viol bi viol bi ankay am na sax solo waaye nag quatorze personnes fu ñu dee ci coow lu ñu dee loolu nag wax dëgg yàlla war nañu taxaw. kan la quatorze personnes yi. loolu loolu laa la kan moo woote mortal combat. Ah, kan moo ah, kan leen woo kan moo woo jeunesse bi ne leen ñëw leen combat bi combat wu euh, joxe sa bakkan la te moom Ousmane Sonko dafa daan wax ne ni politicien bu ñàkk fayda ba nga def sa tojaange ba pare ñëw taxaw naan dañ maa complot kooku amatul luñ la mën a wax moom Ousmane moo doon wax loolu kon ci loo xam ne moom moo solal dàllam demal boppam loolu na kooku wax dëgg yàlla na xoolaat boppam parce que xale yu ndaw yi sax ñi nga xam ne yoruñu benn responsabilité kenn mënu leen a lalal ndigg sërëxal ba ñu cëpp kon moom bu bu bu bu tollee niveau bi mu toll di bëgg a jiite réew mi ah buñ ko lalee lalalee ndigg sërëxal ba kooku ñu ko joxee réew mi fu mu jëm musibaam. nel na ma booleeg yow. monsieur dañuy boole li <laughs>